Kaw Cissé numéro 2 nee Kaw Cissé moo waroon a bëri ki xam ne mooy Cheikh Tidiane Niang mu nekk quatrième combat de la soirée ndeysaan tey neuf combat moo am Laurent moo daan ki xam ne mooy Alliance Baldé ndeysaan jël bu rëy Fadam Junior Kaw Cissé Kaw Cissé seen droite Fadam Junior seen gauche Fadam Junior Kaw Cissé numéro 2 Kaw Cissé takk ko bañ na Kaw Cissé dafa bëgg a dugal mboot door na caxabal demul Kaw Cissé Fodem Junior Kaw Cissé Fodem Junior Kaw Cissé takk na ko mu nga yëkkati bañ na Fodem Junior Kaw Cissé Fodem Junior Kaw Cissé numéro 2 Fodem Junior Kaw Cissé Fodem Junior Kaw Junior Fodem Junior Fodem Junior Fadam Junior Kaw Cissé Fadam Junior Kaw Cissé numéro 2 Kaw Cissé door na lonk lonk lonk ba hee tëna arbitre ba wa nga daw ndeysaan Fadam Junior Kaw Cissé Fadam Junior eh eh eh jël ba rëy na xoolal ma lii xoolal ma lii nee na ko maa la mën Kaw Cissé daan nañ Kaw Cissé Fadam Junior Fadam Junior daan na Kaw Cissé numéro 2 Faram Siñoor daan na kaw si sa numéro 2 laay laa Géejawaay am nañ benn ndam ikiri moor Fadam moom Fadam Siñoor mu ngi noon di dem jëlal ma Fadam mu ngay dox doxoy kanaara naan tenkam tenkam tenkam lii mooy maa mën maa ëpp doole daan naa jeex na tëjal